tey jii euh, dañuy xëy te xamuñu fu ñu teg seen tànk ci wàllu euh, ci wàllum liggéey donc ak entrepreneur yi fi nekk ñi nga xam ne dañuy demal seen bopp ak start-up yi ak ñi nga xam ne dañoo seen entreprise dañ fee daje woon tey pour euh, ñu waxtaan sottante xalaat wan ndaw ñi nan lañuy utee xëy bu leen gënal parce que tamit nit ki mën na am ay diplôme donc ni man lii laa bëgg a def te au final du ko mën a def parce que amul jumtuwaay yu mu ko defee amul fu mu ko war a defee amul ku ko war a jàppale wala war a orienté ba mu am loolu donc wala moo tax cabinet bi ñëw donc organiser forum bi nii loo xam ne waxtaan lay doon boo xoolee étudiants yaa ngi fi chef d'entreprise yaa ngi fi exécutif de l'état yaa ngi fi directeur euh, de formation yaa ngi fi aussi donc benn moment la boo xam ne tey pour aider leen parce que tey étudiants yi fi ñëw ñëpp boo laajee ku ci nekk mi sa CV toog ak moom fi toll nii waaw donc ci kanam xam naa sax boobu moom ci kanam moom dina tàggatoo ci man parce que voilà dañoo war a CV yëpp am ñoo xam ne sax si possible donc voilà et que aussi comme am ñu fi nekk ñoo xam ne aussi bëgg nañu ay éléments yoo xam ne balaa ñu fi jugee donc pourquoi pas ñu placer ñoom à leur niveau mën euh, a aussi cabinet bi mën na def entretien parce que cabinet tamit day recruter pour externe donc mën nañ leen defar entretien après placer leen ñoom tamit ñu mën a gérer di def. ay weer ci ginnaaw organiser organiser woon ngeen lu mel nii fii ak euh, collège Notre-Dame yu baax. Mhm. loolu lan la joxe en terme de résultat. waaw joxe na résultat bu baax nag parce que bi ñu jógee ci événement boobu mën nañu ñu ñu seet si bëri na trop parce que soo ñu seet si ñu mooy euh, bi ñu gisee suñu conférence de presse ba pare gis li ñu leen di proposé dañoo daw ñu ci ñun bu bëgg ku leen orienté bëgg ku leen teg ci yoon parce que da gis ndaw moo xam ne day yor diplôme yu bari mais xamul lu mu ciy def wala mu yor benn diplôme wala mu am mbag xamul fu muy jaar donc te am na ñoo xam ne sax duñu am mbag mais dañuy toog waaye daal mun ñu am liggéey alors que c'est pas ça voilà mën nga am xam-xam sans pourtant nga am diplôme loolu nag il ndaw ñu xam ko il faut ñu orienter leen ci te benn faiblesse lay doon parce que fii xam nañu Sénégal boo nee awma bac rek voilà dañ lay daal di dénigrer dañu yaakaar ni moom boo amul bag rek doo intellectuel te du loolu noonu mën nga bañ am sax BFEM mais am compétence yoo xam ne tey jii mën nga sax diviser koo xam ne am na doctorat mm-hmm. donc tout yooyu yëpp foog ñu xelal leen ko xamal leen ko delloosiwaat leen ñoom tamit ñu mën koo xam bu ko defee rek euh, li ñu bëgg ci seen wàllum xëy ñu bëgg tamit pour am ko dinañ ci accompagner aussi ba ñu am ko incha allah état bi tamit mi ngi lancé programme bu rëy bu tudd xëy ndaw ñi mhm. comme yeneen yéen a ngi yëngu ci wàllu xëy mhm. ban lëkkaloo ngeen am ak nguur gi pour mën a boole seen xalaat mhm. seen doole pour que xale yi tamit man ci gis seen bopp d' accord waaw fi mu toll nii nag ñu jëm ci euh, benn événement bu am solo dama ko fàtte woon sax wax en français donc euh, d'ici 2022 dañu organiser li ñuy wax teraanga yi su 2022 gaynde d'or voilà li tax ñu boole ci Gaindé Door gi nag côté euh, exposition mooy Teranga Expo bi mais Gaindé Door gi mooy côté entrepreneuriat donc euh, te foofu noonu nag partenariat bi entre ñu nag état dina ñëw parce que li ñu bëgg foofu noonu dañoo bëgg euh, bàyyi xel ndaw ñi ñam xëy bàyyi xel ñi nga xam ne tey jii ñoo stage parce que tamit du ñu am xëy kese am ñoo xam ne soxla nañu expérience professionnelle il faut aussi ñu accompagner ñu ci loolu moo tax tamit euh, fi ñu jëm pour l'instant amuñu benn partenariat ak état bi parce que ñun dañuy defar dañuy liggéey à l'interne di recruter suñu bopp di recruter aussi pour ñeneen mais ak fi ñu jëm tamit donc c'est normal ñu collaborer ak état bi bu ko defee foofu ñu mën jëm ak entreprise yi ñu mën a jàppale ndaw yi ñu am xëy ba pare ñeneen ñi nga xam ñoo am expérience professionnelle ñu am ko ci ci ci liñ ko bëggee voilà te loolu noonu liggéey la bu ñuy def te ci incha allahu rabbi 2022 bi lañ koy démarré te sax démarré nañ sax parce que d'ici la semaine prochaine quand même recrutement yi day démarré waat euh, ci cabinet bi incha allahu rabbi merci beaucoup